يأتي بها هاد رصيد بعدما هاد ويحمل سيد عن سيدي حتى تناهى لابن ناصر الرضا بيت القصيد ووادث المتقلد فأضاء من مصباحهم مصباحه والفرع يزكو عند طيب المحسد وكأنما ذاك العباب قد انتهى لأجل تنية وأديب مقلد وكذا الحقيقة بشريعة فجدلة أثناء ترفل في صفوف الأبرد maanaam tariqa bi tariqa sadiliya bi mu nekk ni ngay wirdaam baxee ko ca Abul Hasan Saasili kay muassis ba da dox ci ay ndigal ci ay sanad yu ci sëriñam bi wax mu ne yahdi dana jubale bi haa ci moom haadin aji juble rasidun ku daa ji jub tariqa la boo xam ne bañ ko fondement ba léegi ay defere kat ñoo cee defer nit ñi ñu doon ñu xam ni ñuy deferee baada ma haadin ci gannaaw aji juble dañu di am ay kilifa yu mag kilifa yu xam ne ñu ngi joxante ay wirdam ci anam gu wér ku fi nekk liggéey bu wàccam jot rek su demee keneen dellu dikkaat wa yaxmilu day toxal sayidun sangaan sayidin jëlee ci sang ay wirdam daal dañul daal ñu ngi ko joxante bi asanida sahiha nga xamee ne ay surayaatam itam dañu nii ko sonnante xataa tanaaha ba mu xàgg ba mbir ma xàgg libne nasirin jël ci ibne nasir arriba kale ku ñu gërëm nii la débaree jabul xasani zasili ba xàgg ci sëriñam bi de sayid ibnu nasir nga xam ne ñëpp ko gërëm baytil qasidi kay wayu qasida wa wasitil mutaqallidi tey diggaleem ràng baytul qasidati ak wasitatul qaladati arab da koy waxee mu nekk masal ci lu ci lu ci lu bokk ci mbir te tànn ca lu tànn ca la bokk mu ngi mel ni nga sama collu waxande ci sa koddaay la waaye na la nga ca tànn la waaw lu bokk ci mbir te da lañ ca mooy baytul qasida qasida mooy ay wéy dajale mu dem ci juróom-ñaari wéy jëm kaw ñu bokk benn baxru buñ leen wéyee bokk ca wëyin bokk ca daaneel ak yëpp loolu mooy xasida te jëm ñaari wëy la dalee su ko defee yëpp mën naa rafet waaye du ñàkk wëy wëñ ca naan nag moo ci gën a ràññeeku ndax xam na lii xam na lii xam na lii way woowu moo tudd baytul mel na soo bokkee ci mbir nag te am yoo ci gën a ràññeekoo nag buñ seete yéen groupe bi mën nañ leen a tuddee xasida kenn ku ne di aw wëy su ko defee nag yow ma ca gën a ràññeeku ñu ne yaa de baytul xasida mm. zukiral anaamu lana mm. fa kaana qasidatan kuntal mm. min abiatiha zukiral zukiral anaamu lana fa kaana qasidatan kuntal badial farda min abiatiha su fekkee fàtte wu ma ko ibnu naasirin sanad bi mu bokk ñëpp a baax waaye nag mayam ga moom moo ko ca jago waa gisatul xalaat dañ la xam na caq bi bu per yëpp di wurus wu boor a foor dar bu mag bi nga xam ne mooy tegee ci dëttan ki sol caq bi dar bu wurusam mooy gën a boor wurus yeneen per yi des te itam mooy ëpp yeneen per yi des gën leen bëri wurus subaa moom moom ak yeneen per yi bu ñu àndee ci bi it taxul mu bokk ak ñoom xem ak ñoom ñu ne mooy wasitatul xalaata moom bayt ibnu nasir nag mooy baytul xasidati ci bi waaye itam mooy wasitatul xalaata tey wayu xasida wi tey di jëleen waaj faadaa dal di leeral dal di leeral misbaahu lampam min misbaahihim ci seen lamp su ko defee ibnu nasirin lim jëlee ci ñii maanaam mbooti ñii yëpp xaru na ci moom mu doon ko doon bu mat ba tax ñooñu nañ doon liggéeyee ci seen jamono ni ñuy defaroo ci seen sabab moom it tey noonu lay liggéeyee ci jamono wala mu baraw ni ñuy defaroo ci sabab. wal banoo bànqaas yas koo dana mu yokku indi tibil di fa tey fa tey ak cosaan mu ne cosaan barke ak bànqaas day xoof الشيء لا ينبت دون أصل والأصل لا يثمر دون فصل mu ne cosaan bu barke ay banqaas day xoom wal farax banqaas yag soo dana mu yokk hen da tibil maxti di fa teeg cosaan taalibe bu dëggu a ah, bu àndee sëriñ bu ma sëriñ defaru da ko yomb wa ka annama daakal abaabu daanaka lëkk moomu wala yol ni woowu qad intaha xàgg na mu li ajalli tanhiyatin diggante ay màggi tanhiya ay bàll yoo xam ne xaw ma ko mën a wolofal dëgg-dëgg waatir naqalatin ak gën ci ay tey naqala maanaam yàlla bu jëmee ci kur dafay xam foofu bu faagee ci kur bi faray taxawee boobu muy tanhiya bu taxawee loo dikk fekk ko bi loo dikk fekk ko bi noonu si dina ko si suñu wane kur bi fekk boobu muy tanhiya loolu nag moom gën a moom gën a yaatoo rek xur wi dàppali ndox xur bu dee ndox bañ ne fees na dell dell dell dell dell dana am barab boo xam ne soo bëggee naan foofu ngay taamu tànkee fa foofu ngay meqalat xam nga day sellal mais dafa mel ni yoon bu àgg ci tan yi bu gën a mage ak meqalat bu gën a neex ndox mooy ah, ibnu nasirin dafa doon mbooti sëriñam yi lépp te xattan ko boo baax tan yow mag bi bëri ndox la makalat bi sell la su ko ko attanu doon dana ci def lu ko kejama waaw mooy ni mu bëgg mooy dafa doon mbooti tariqa boobu te xattan ko bu baax nag waaw wa ka annama daakano baabu daanaka lëkk moomu qad intaha xàgg na li ajalli tanhiyatin ci gën cay màggi bu atee bi meqalateen ak ten seeni neexee meqalat fekk saa wattee na alxaqiqata xaqiqa bi sariati sariat ci doon gim doon kuy defar ci lay jëlee xaqiqa xottee ko saria wala dund na ci xaqiqa lu bëri dégg na ko ci sirru lay xam na bu baax a baax saa yaram itam tàggatu na ci adabu sariati bu baax a baax lépp lu saria yi santaane rek mu ngi koy def lu muy ay itam moom mooy baax kon mooy jaadu dégg nga xaqiqa dañu koy dund ñu xol bi day dund ci yàlla dégg nga seetlu nga baax a baax soriyan wareet la waaw xamuñu lu waxee de xaqiqa dañu koy dund xol da koy dund bu baax a baax mooy musal nit ci ñàkk teggin ñu koy jéppee ci kii sama soriyan nag wareet la ah, nit dafa war nekk di ko jëfandikoo ki day maanaam mooy mos a leen si jikko yu ñu ko jikkee moom xaqiqa bu ko dundee mën na mujj ci kibru mën na mujj ci ojbu mën na mujj ci bari. sama waaw waaw. su fekkee ne nag sariya la nag il faut rek moom lay jógee di ko waxee. ne xaqiqa mooy xaqiqatul ubudiyya sariya mooy xaqul ubudiyya fa man taxaqqaqa al ubudiyyati ni nga wax man taxaqa fi ubudiyati ni nga wax ranaa xuquuqa al ubudiyya fàtte naa ko ranaa xuquuqa adama fàtte ni nga ko waxee ti waaye ji ne faale bu mu sori ah kooku mu ngi bokk ci tàmmatu suufiya mu ngi bokk ci yi gën a doy waar yi gën a jar ragal ci àddina jaam dafa am fu mu war a yem léegi la ko wax jànkatu si moo koy wax euh, yonent yi ndax day am loo xam ne diggante moom boromam rek la nekk bu ñuy wax tabliix dafa wax loolu taxul xam nga jox naa ko ci misaal yonent bi sallallahu alayhi wa law taalamuuna ma labaxittum qalilan wala bakaytum kasira mu ne bu ngeen xamoon ma xam da ngeen dee wërre da ngeen bëril jooy te waawa xam nga bu fekkoon dara newu ja dafa wax lim xam rek ñu dëkkee jooy mu jeex waaye ko de te loolu bu dee bu ngeen xamoon li ma xam loolu ko de waaw sannan ba ba uku ko ta tsauni ran na sori an tsauni sam tsauni ba sam ya sa wa sai ko bai ya ta kurin ba wa tamik ba wa ba da wani haka ya kabi mai dundu nure na ko sori ko kan ne wasu nan a kan da na majiyar ya lai ba ki sa lennan lennan lennan ki jam na rikiyar ya seetlu bu baax a baax a baax xam nga li ko sama borom xamal ci mbiram kenn xamul lu fekk na mu feeñal xas naa a jong tar bu lu jóg dana mu daagaale te suuf si laa bëgg di feeñ di sopp moo tax boo gisee comme jong nga ma ji sañse ji sañse la ah comme jong nga ma ji sañse la waaw wala comme jong nga ma ji sañse la wala sëriñ bi comme jong nga ma ji sañse la xam nga yére bi bu bu ployé jong nga ma sol ko. da nga gis ne li ci kaw te muy yëre yi li ci biir ji moo gën fort loolu yow ko xam bu baax a baax ànd ak li ci kaw da yëre bi moo koy protéger mooy xaar nag li ci biir solo bu baax a baax waaye nit bu demoon ba ca ma ak lu mu taaru taaru ak lu mu neex mu futti mbubbu tëral futti leneen tëral futti leneen tëral ba mu des jëmm ji kese mu ne yii ay la yii nit a ngi nii xam nga xam nga la wane noonu muy nit kenn du ko bëgg tey gis ku bañ dara du ko bëgg tey gis ci àddina wala dogal ne kon <laughs> wala nit malaan da koy aar kon mu gën a na sori da koy kon daal da ko bëgg a for ma doonam dafa jël xaqiqa muure ko sariya ah. nu ma ko gisee comme jàng ma ñu sol yére yu rafet la baax na li diini min nafahatihi qulubun yaqulu buratuhu hal min sadi maa'un yusilu lxallatayni fa yaxtani bi wujudihi lxarisu tarimu wa man sadi mutasaddiyan lil hadi minhu bi sarimin ملهن بمسهود الغرار وما صدي وبمجمع البحرين بحر حقيقة عمق وبحر مسريعة مزبد كمهند عضب عتاد للفتى يوم المصاع مجردا أو مغمد ولا مجرد أو مغمد ne su ma ko doon jàng su ma laa de wax dafay wax sëriñam bi sayid ibnu nasirin ni ñoñ jamonoom jëriñoo ci mu lay ne wata ba jasa dal di pall li diini ñaal diina min nafahatihi ci may ibnu nasirin tulubun ay teen yaqulu dana wax kuraatu ndoxam mu neex ne hal min sadi ndaxam na aji mar mu ne ibnu nasirin xam-xamam ak barkeem dafa feeñ ci diina ci jamonoom lool waaw nit ñi yar na leen bu baax a baax bañ sunnayee ci gannaaw bu mu leen xamalee bañ xeewu loolu moo tax mayam gi kem ni feeñee ci diina dafa mel ni ay teen yu balla la mooy nit la ku xam ne heure bu dee jëriñu ci xam-xam heure bu ne itam jëriñu ci juble lay def dafa mel ni teen bu ball rek heure bu ne ndox mu yol moo tax heure bu ne ndoxam mu neex a ngi yor naan ndax na ku mar wa tabajjasa ball na li diine ñaal diine min nafahaatihi ci mayam xulubun ay teen xulub jamoo xalib la mooy teen buñ gëstu defal buñ ko pind sayid ibnu nasirin ay mayam eh, feeñ na ci diina lool maanaam liggéey na ci liggéeyal na ci diina lool yaqulu dana wax kuraatuhu ndoxam mu neex moom sayid ibnu nasirin nanal min sadi na xam naa ji mar mene maa un ndox la yusilu moom dana mu dañal alxallatayni ñaari ñàkk yi te mooy xiif ak mar mu ne ndox mi ballee ci may ibnu nasir wala ci teeni ibnu nasir ndox la mu xam ne duut xiif duut mar rek lay far lay faj waaye dafay faj mar ak xiif ndox la mu xam ne day taxaw taxawaayu lekk mën a taxaw itam taxawaayu naan taxawaayu lekk ak naan lay taxaw loolu nag ndox mu ko mel moo gën ci ndox yi yi ñuy jëfandikoo lu ko ci mel moo ci gën mboolem ñun yi ñuy jëfandikoo nag soow rek moo ci mën a taxaw taxawaayu lekk ak naan moom rek moo ko ci man loolu moo tax benn ñam bu gën amul yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu mosaana lekk rek day wax ne allahumma barik lana fii wa at'imna xayran minhu su maye soo moom de bu ko dafay wax allahumma barik lana fii wa zidna minhu ah loolu lay wax loolu lay wax mu ne nag teenam bi nag dafay faj xiif ak marde mooy ibnu naasir xam-xamam bi gannaaw bu mu doonee xamlekat dafa ànd ak barke ba nga xam ne boo àndee ak moom ni ngay dundee ni sa xol ni ni ngay dundee ci leeru xam-xam noonu ngay wéyee itam ci tira ngay barke waaw mooy dafay taxaw taxawaayu lekk ak naan naan gi mooy leeru xam-xam bi lay gindi de dundal xol bi lekk gi mooy tira ngay barke bi tax sa mbir da yomb loolu may wax fi rek loolu mooy lim bëgg a wax waroon ne fa yaxta nii dana doylooyee lu wujuudi yi ci xam ak ndox moomu alxarisu aji xiif xabari mu kuraaji lakk ci baljat waman ak ko xam ne sa diya mar na mu ne teen la bu ne boo tiifee boo ci naanee da nga suur boo maree boo ci naanee da mandi kon soo boole xiif ak mar boo ci naanee ah da ngay day taxaw taxawee nekk ak naan ah, de mooy li mu wax mutasaddiyan te aji gaarlu lil hadi jëm ci juble min hu ci moom bi sari min ci jaasi min hind ci hind mashuudil xiraar bare bu ñu daas ñëw kaam wa ma sadiya te qoomaagut mu nekk sëriñ boo xam ne taxaw gim taxaw ci kanam jaami yàlla yi bëggut ci ñoom lenn lu mooy teg leen ci siratullahil mustaqim loolu rek rek rek la bëgg ci ñoom gis nga ko baax a baax te yee daje ci nit ba mu mérite loolu yëpp dajee na ci moom am na xam-xam bu wér a wér a bu baax a baax a baax a baax te itam jaamukatu yàlla dëkk la bu sunnahee sunnahee te itam xam na melokaan wum déggoo ak nit ñi ba ku ne mën a jëriñoo ci moom te itam xam na basiira yàlla xeena ko ba mu xàmmee mbiri hawa ak mbiri dëgg te itam xam ne hitte bu kowe ba yàlla rek la bëgg bu bu ñi ci ñoom la ci yàlla lay jëm ñoom xam nga ni ma la ko waxee de waaw mu ne yooyu dajee na ci moom ilmun sahihun yaksifu dujunna wa amalun ma attibaai sunna wa halatun mardiyatun mu'tadila bil inxiyaasi fi jamii al amri maa basiratin laa nufuusu hawaahu bittilaiha mambuusu wa himmatun aliyatun anil wara bi rafdihim wa rafdi wara yooyu bu dajee ah da nga mën a juble bu dajee wun nag ah xamu ci dara waxuma doo mën a wax man nga waaye nag juble moom man xamu ci dara bu dajee nag ah, da mën a juble ah bu dajeewul nag moom xamoo ci dara. a sëriñam bi mu ne jublekat la bokk na ci li muy jublee làmmeñam wu yab bu fasaaxa mi yab hikma ni nga gisee jaasi hind ju ñu daas ba mu ñëw amul benn xoomaak ni mu yabee tagg mu ne noonu la amee as fasaaxa yabee ko lool hikma ndax itam nag nit ki pour mu doon jublekat war na àgg ci muntahal fasaxati ah war na ci àgg waaw. tey ko sax boo ko amoon doo leeral bi sallallahu alayhi wa kenn kenn melut ni moom ci fasaxa ñi ko topp itam nekkal ko fi noonu lañ mel on la ummati ñu bëree bëri ñëpp ñu bëri dañoo am fasaxa ñu bëri dañoo am fasaxa waaw. ren mu tasaddiyan te aji gaarlu lil hadi ngir juble min hu ci moom moom Sayyid ibnu Naasim mooy day juble ci mayam bi saari min ci làmmiñ wu mel ni jaasi saarim jaasi ju ñëw ci lañ ko jëfandikoo min hind ci hind masudil xiraar fële bu ñu daas ñëw kaam dama sadiya taqamagut wa bi majmael bahrayni ak ca xol bay daje waay ñaari géeji bahri haqiqatin géeji haqiqa amiqin gudaaji xóot wa bahrin ak géej mi soriati ci soria musbidin gudaaji duusu ak xolam bi nga xam ne dafa fees dell ak ñaari xam-xam yi dafa dund ci xaqiqa bu baax a baax a baax a baax a baax ne ko xol bu dégg soriant bu baax a baax a baax a baax xam bi mu xam soriant ndax jàng na ko dégg na ko moo tax waxam doo ci gis lu wuute ak sariya ay jëfinam itam doo ci gis lu wuute ak sariya kon xol bi géeju sariya ngi ci bu xam ne ay duusam dañuy jox xam nga sariya moom la ñuy feeñal ci kaw moom la ñuy àndal ci waxin ak ci gisin su ko defee duusu géej bu jógee yaa ngi jënoog moom su boobaa nag xam bi mu xam sariya te di ko jëfee ak di ko waxee waroon na xol bi géeju sariya ngi ci bu xam ne heure bu ne day sànni duusam saa soo déggee mu wax rek day wax mm, comme ni sëriñ bi jot a saa soo gisee muy def rek da nga xam ne kii bu respecté sëriñ bi la loolu nag xam gam xam sëriñ bi moo tax. ànd bi nag lu fees del la ak leeri maarifa la lu xama xama xam mbooti sama borom yi muy wan tànneefam yi may ku yàlla wan yi muy wan eh, yi muy wan tànneefam yi mooy ku am dégg ci sirru laay la fekk lu mu moo koy xam. waaye duñ ko de wane ati sax dañ koy dund mais ko wane ifzaaw sirri rububiyyati kufrun ifzaaw sirri rububiyyati kufrun baaxul seetlu ko baax nit amul sañ-sañu lu ko sama borom xamal lu ko sama borom xamal rek mu wax ko amul sañ-sañu loolu waaw ah, lu demee ba dund ci leer waaw ah, borom amatul sañ-sañu lu mu dégg wax ko lu mu dégg wax ko ah, amu ko dem waxoon naa ko law taalamuuna ma alimtu la dahiktum qalilan wala bakaytum kasiran yonent bi mu ne bu ngeen xamoon li ma xam da ngeen néew a ree te da lam xam lum de est-ce ko kenn xanaa kenn du wax xamu ko de ndax nee li ma xam dafa jaaduwut wa wax su jaaduwut a wax fa mu jeex waaw jaaduwut a sant na ko baax a baax waaw sant na ko baax a baax waaw. moo tax mu ne géeju xaqiqa gi dafa xóot xam nga xóotaayu géej doo koy gis xaqiqa itam dañ koy dund waaye du lu ñuy feeñal ci waxin ak defin mu ne géeju sariya bi heure bu mu ngi sànni duusam xam ngeen xam sariya bi ànd ak moom ci waxinam jëfinam waaw ah, nit la ku xam ne ku xolam dund ci leere xam yàlla la waaye ku sa yaram taaroo ci teggiini sariya bi la. loolu mooy li mu bëgg a wax. waaye dama dama am xam-xam bu wér nekk jaamukat yàlla bu sunna yi mooy loolu xam-xam bu wér nekk jaamukat yàlla bu sunna yi. wa bi majmayal bahrayni ak ci xol bay ah, dajewaay ñaari géej yi. bari xaqiqatin géeju xaqiqa amiqin guraaji xóot. wa bahrin ak géej mi sariati ci sariya musbitin guraaji duusu. ka muhammadin mu ngi mel ni jaasi hind haddin jada aji ñaw hataa din jada juñu kadu lil fata ñaal waay yawmal misaaye ci bisab xare mujarradin jaasi jada juñu bocc waxuma kenn na ko defar nag aw muhammadin walla jaasi jada juñu ma juñu mbatal mu ne ibnu nasir ci biir gaañ dafa mel ni jaasi yëndu ci biir xare buñ ko boccee ndax soxla nañ bocci ko dana liggéey lu am solo buñ ko soxlaa gun mu nekk ci mban mi mu ne nga nay lu wóor nu naa se saa soo xamee jot na bu defee temps biir dana jëriñe lool saa soo xamee ne wax jotam bu noppee itam teewul noppi ga ci fu tëgër la koy teg mu ngi koo xam ne bu wax jotee maanaam ka ka ka mu ànd na di sunu mel ni jaasi ji ci hindal abdin jële ji ñoqatu hatta den abdin jële ji ñëw lay wax hatta den jële ji ñoqatu lil fata ñaal waay yamal misaay ci bisu xare mujarradin jaasi jële ji ci mbocc al muhammadin wala jële ji ñu mbatal dina ko bu baax a baax waaye lu jafe la nag ma ne lu jafe la min asafil aniqi tiraso wa min asabiqi bimismalin wa bimisadi wa yaqutu min xayri ljanibi fayqis farfani wal ari lmasubi bisirbidi qul lilmuqilli min addirayati wattuqaa almin bidarata la abalaka turbadi فالغيث ينجعه المسيم ولو نأى والفضل أخلق باجتداء المجتدي والداء يتسأله وأضره أداء قلب عن هداه معبدي ci sëriñam bi dana mu xoodee sëriñam ci ni mu yaree nit ci boole sëriñ ak xaqiqa ci la wax mu dellu ci wéy mu ne yegg soo dana mu xoodee bi mismalin ci làmbaay mooy mbubam kaw wa bi misadin ak ci njiit lay mooy mbubam biib xam nga sariya mooy feeñ ci saayir da ànd ak waxin yeeg jëfin yi xaqiqa yëfi biir la xol a koy dund su ko defee moom la tuddee méji sax woon biir sariya mu tuddee ko mismal yar gi muy yar taalibeem nag ci aljama bayna sariyati wal xaqiqati moo tax ne moom boo dikkee danaa xottil njiit lay xottil la itam lambay balay jox mbubu kaw ak mbubu biir mina soppi ci sopp mooy pis bu xoyof al aniqi bu daa ji rafet tiraasu woo njamam wa mina safiqi ak ci safiq buy jamono boo xam ne pis bu xoyof nga war a sol dana la ci daggal njiit lay ak mbubam kaw buy jamono boo xam ne pis bu tal lañ war a sol dana la ci daggal mbubam njiit lay ak mbubam kaw safiq pis bu tal lay do maanaam jamono bu ne ak kenn ku nekk rek man na ko teg ci yoon wu xam ne dana ca doonee ku xiwe gannaaw kooka nangul na ko nangul ak ànd ak moom nangu ànd nag moom yekk soo dana mu xootee mi na soppi mooy ci pis bu xoyof al aniqi bu daaji rafet tirasu woon wa mi na safiqi ak ci safiq mooy bu tal dana ciy xootee mi suma ci làmbaay wa bi mi sa din ak ci njiit lay wa yaquut te dundule min xayril jan min xayril janib ci gën ci janib xeetu tàndar mala wa bayqi sarfaan ak aji kowe sarfaan xeetu tàndar mala wal ari ak lem almasuub ba de buñ jaxasee bi ba din ci diw te itam mu ne kët gu neex la mais soo nekkee ak moom tàndarma bu gën ci tàndarma yi hmm. muy jëniib ak sarpaan ak lem gu jaxasoo ak diw hmm. ngay lekk heure bu loolu ci la lay dundalee bu ñu waxee dundal ak sëriñ ak taalibeem hmm. mooy dundal ruuxam def ko muy nit ku sell mu ne ci ñetti xaaji muy al islaamu wal imaanu wal ihsaan ci laa dundalee sa ruuxu te lay wan fooy jaar ba sa ruux dundu loolu mooy wax bi rek wa yaqoo dana dundulee min xayril jani bi ci gën ci jani xeetu tàndarma la ñu naamuñ tàndarma wa fayete sarfaat ak aji kawee sarfaat moom itam xeetu tàndarma la ñu naamuñ tàndarma wal aari ak len almasu bëri buñ jaxasee di seexa ci diw waaye ñetti xaaji diine yi ci jublu al islaamu wal imaanu wal ihsaanu soo àndeeg moom ci yooyu lay tarbiya lu ci nga rafetal ko lu ci nekk nag boo rek da nga def al jamoo bayna wal haqiiqa mu ne qul waxal lil muqilli ñaal aji néewle mina dirayati ci xam wattuqa ak ragal yàlla ne ko xal mim wàcc kul waxal lil mu xilli ñaar ak i néew le mina dirayati ci xam wattuqa ak ragal yàlla boo gisee nit koo xam ne moom njubam dafa des wala xamam des mu bëgg doon ko xam bëgg doon ko jub ne ko al mim bi dara ta dara ne ko demal dara foofu la nekk mooy baaxee kaay la ba déet waaye lakkale la ñu am léegi yow daal dëgg-dëgg dara nga nekk bi soo ko defee pour fat def na loo tàmm fal xëy su ñax daw lay firi waaye ñax lañ ci jublu su ko deme ñax ci taw lay sababoo jox mbir turu la muy sababoo arab da koy waxee moo tudd almajasul mursalu ci bayaan moo tax ne fal xaysu ñax yan jama woo dana ko forlu al musiimu aji màng walaw naa donte sori na soo fi amee jur nekk barab boo xam ne amul ñax amul luñ lekk soo déggee foo xam ne boo ko yóbbu sa jur man de ko suurale ak lum sori sori ñax ma ngay amee suural daf lay jaral nga jiital sa jur ba foofa donte da ngay xendoo ay fan mbaa nga fanaan àll ay fan teewul ñax mi ngay wattoo sa jur daal war may xalal jar na lool. mu ne ñax dañ koy jéggi diggante réew ak réew wal fadlu ngëneel axlaqu moo gën a xeyoo bicc dayil muccadi ci mayu aji mayu te xaraa lu gën a yitteel moo gën a xeyoo ñii ko jéggi nit nag lu gën a yitteel hmm. ci mbiram mooy diggante moom yàlla rafet kon koo xam ne boo ko demee xamee faxandeeg yàlla hmm. soo ko koy sori warul la ko yàqal hmm. ah gannaaw borom jur gi ki nga xam ne ko demee xamee ko jur gu suur foofu moom sori du ko yàqal yow mi nga xam ne fa ah, nga yow itam fa nga xam ne boo ko demee xamee fak set la foofu sori warul la ko yàqal wal xëy sa ñax yan dana ko korlu almusi mu aji màng borom ak jur dégg ñax barab mu lool du tee ko cay dem ndax juram mën a suur ren wala naa donte sori la wal fadlu ngëneel nag su fekkee ñax a jar lii nag ngëneel lu toll lu ne ànd ax la ko moo gën a xeeyoo bi ci layil muy tëddi mayu aji mayu wa daawu jàngoro yu tas faa des na saafar lawu lawoo ngir mu ne tawat boo ko amee da dem faju ji dafay am looy yëg ci sa yaram su ko defee nga bawoo sa dem ba xam dem ba fekki docteur dem de maanaam dem seeti docteur ba xam soo demee dang nga koo mayee sa jëmm lépp fu ne mu am sañ-sañu laal ko sañ-sañ bi mën naa àgg sax nag ci mu jël paaka xotti barab boole ko nag mu laaj la xalal te danga ko koo jox boole ko mu am yum la xaye yu ne yu neexoon ak la te doo ko lek boole ko mu am yum lay lekkloo yoo xam ne yu naqadi la te danga ko lekk xamul lépp moo ko joxaan ah, waaw da ngay jógee sa kër partout dem fekk ko fam nekk su ko defee mu am sañ-sañu fu ne mu laal laaj la xalal itam xayal ay ñam yoo xam ne bëggoon nga ko lool te doo ko laalati dina laal ay mbir yoo xam ne wax na ci yow lool ko danga koy lekk ndig lan na nga am wér gi yaram ndax wér jar na den tekki ko fam nekk su ko defee mu am sañ-sañu fu ne mu laal ci sa yaram laaj la xalal itam xayal ay ñam yoo xam ne bëggoon nga ko lool te doo ko laalati dina laal ay mbir yoo xam ne wax na ci yow lool dama da koy nekk ndig lan na nga am wér gi yaram ndax wér jar na lool mu ne su fekkee wér a jar lii maanaam defaru jëmm mooy jar lii kon defaru xol ak gën a jar waa daru hoo gën jaay lori jàngoro yi nag adaaw qalbin mooy jàngoro yu xol maa badin kene kuñ dàq xol ba de buñ soriloo an daa hu wandi si njubam jàngoro yi nag bi gën a mooy jàngoro yi njubadi subaa nag gannaaw kii faj jëmm moo xeewa lii kon kii faj ñu ne fay juble moo gën a xeew a ah, ko fu jox gannaaw lu ne ba àgg moom nangulee ko nu ne ba jëriñu ci moom ba defaroo ci moom saan ila xalafta ila bni nafirin insana hattun nawaib anka gayra muhattadi wa nadarna bi tarfi lxasiri xawaasi an wa ramayna bi saami lkasiri lmafrati wa gadatna gadata mujalin aw muxjalin wa adadna adata masixin aw adradi wa madadna kafa musalimin wala talama ansabna mixlaba sairin mutaaqidin أن قد عثرت على لبنة المنى وظفرت بالكنز الذي لم ينفدي ñu jàngal la dama ne demal dara فإذا خلصت boo jotee إلى ابن ناصر jëm ci ibnu Naasir soo demee ba àgg ci ibnu Naasir ba jaayanteeg moom mu nangul la sa jokk ci moom nga de taalibe muy sëriñ bi insana wëññee ko haddun nawaaji bi ñëw kay xew xewi jamono yaan ka wëlis la alay ra mu haddadin moom dumu lu ñu daadadi lu ñu yawalati su waayu yàq nit moom raw nga leen ndax rawu gaay la so demee ba ànd ak dana la xamal ne xeela dana la yar suba da ngay tàggu réer nga tàggu xawa nga tàggu saytaan léegi nag boo tàggu ñoom siratul layin mustaqim rek ci ngay wa nadarna te ñu xool bi tarfi ci gis alxasiri lot subaa nawaa ibi dañ xam ne gàtta nañ la xawaati an mbir muñ de way sori subaa nawaa ibi duñ la ñëwee te jege mu ne taalibe ibnu nasirin seytaan ñëwru ko jege ndax seytaan ñëwru leeru borom xam-xam borom xam-xam na buñ ko waxee mooy koo xam ne joxeem rek waaw te waa ndeeg moom gën lay ci ngay xamee ay pexe war a may na te ñu sànni ñoom na waa ibi bi saami ci fett alkasiri gëri gu ñu damm almasra di gudaa ji moy te itam mu ne boo àndee kim nu naasirin pexeem seytaane mu jëm si ci yow day mel ni fett goo damm guñ la sànni mu far moy xam nga fett gi gannaaw xamul ñaw su dalee it mën naa bañ a lor sakka bu moyee fette gi bu ñaw ñaw bañ nat la ne bu dalee dana lor su dalut du mën a lor kon naka su boolee tam mag moy nag sëlula waawa maanaam ibnu nasirin kenn ni muy yaree taalibeem taalibe bi da koy jub ba nga xam ne yu seytaane di naxee nit ñi da leen sàgganeloo soriya bi wala da leen yàqal sellal jëf wala da leen dugal ci topp ko ñu tam seytaane du ko mënee lool du ko mën a lool mooy bu ko sànnee sett sett gi day may tey def im naasir mayem xàgg ne ci ku làpp ci moom a lay garante mën na bàyyi bëri nga gisuro ak ñeneen mooy gerte gi dañ koy damm te nadar na te ñu xoolee bi tar bi ci gis alxasiiri guraaji lot guraaji méttilu xawasi ande way sori la ñoom nawaajib yi wara may na te ñu sànni bi sa mi ci fett alkasiiri gëri gu ñu damm almasrati guraaji mooy waxatat na te ñu gëmm waxta muujalin gëmmëg ku ñu jàqaloo aw muujalin wala gëmmëg ku ñu rusloo suba nawaa ibi dañuy gëmm comme ku jàq wala dañuy gëmm comme ku rus duñ la xoolati waaw mu ne ko ànd ak nasirin toroxal na saytaane waaw ko ànd ak ibnu nasirin saytaane ñemeetu ko waadat na te ñu matt addatal masixid matt ak aji mboorent aw adredi li fi nekk matte courmesre la suba seen yëngatu yi war a jëm ci yow li muy mel mu ngi mel ni ki ne fa lay te di la kafe soo amee bañ yum la méttitali it xam nga du la méttital parce que da la kafe wala keneen na la matt te amuli bañ su la meree it bañ yum lay méttitali amoo ko li am daal mooy ibnu nasrin ku ànd mu lay rawan wa madat na fi ñu tàllal kappa musalimin tenqal aji juboo te itam na waaye bi dañ lay jox loxo pour juboo ak yow wala taalama an sam na te bu ñu sampee mais Allah ba sa irin wéy aji jeqeegu mu taaqirin ku daaji nëbb nooneel te fekk jéem nañ laa daanee leen nu ne ibnu nasirin boo àndeeg moom yu bëree bëri yoo xam ne mënoon na la yàqal dafay mujj yooye nga gañe leen loolu mooy bi rek yu bëree bëri yoo xam ne mënoon na lay gàllankoor day mujj yooye dafay surga ndax dalaa yeen rek ci liggéeyal yàlla sama borom boo koy liggéeyal addina mooy lay liggéeyal waaye addina nag boo koy liggéeyloo boo koy liggéeyal moom fa la liggéeyloo léegi nag moom day jël taalibeem def ko ci la teg eh, ko ci yoonu liggéeyal yàlla su ko defee addina de surgam te mën naa am bu duudoon yarinam woowu kooku mu yar ci liggéeyal addina rek lay nekk heure addina di ko liggéeyaloo sama dan na teñu tàllal kappa musalimin tenqal aji juboo wala tàllama sob na te yàgg na bu ñu sampee ñax la ba wey aji jéqeeku mu taakkirin ku daaji nëbb nooneel an ngir lan xanaa farta fakk talu nga ala lubanaatil munaa ci aji ñoom ne wari la ndax bu ànde ci mun naa se kumbiram jag ba pare nga wala firta te nga tuufoo bil kanzi ci ndàmb allati ndàmb li nga xam ne la ngeen sot du mu soo ànde ci mun naa se xam nga koom goo xam ne ñàkk du ko toppati na faw rek nga xamee xam yàlla ci ànd ak moom te nag mu lu ne man arafa llaha falam tuxnihi maarifatu llahi fadaka shaqi ma yasnau al abdu bi insi l xina wala yasu kullu laysa lil muttaqi وهديت بالزهر النفيس المنتقى ورتعت في أثر السواري الجوة تعلقت بالعقد الذي لم ينفصم وأخذت بالطول المتين المقصد وأويت للكهف المنيع المؤتوى وسندت في الجبل العفيف المسند توكلت صرح النفس منك لسائف كاف إساء لسروحها فانبدي وشكوت للحكم الذي يشكيك من إمداد خصم من هواك يلنددي mu ne waxaat yi te te nga xeejoo bi suuri ci ndaxañ si ci ndaxañ téef am na fii bari bu ñu mu ne soo àndee ibnu nasir te jaxaane wuloo ànd ga la nga jëlee ci moom day doon njëriñ lu dul jeexati ba faw day doon denc bu gën ci denc yi te mooy góorgóorlu ci yàlla ba sa diggante yàlla rafet loolu mooy lu gën ci lu ne de denc pour ëllëgam war a taata te nga sàmm mooy te nga wit war a te nga wët ci affaire sawaar yi ci jeexiti néer yi da way reñaan ci njël al jiwat yee da way nangoo taw te itam danga mel ni kuy wëtt ci àll boo ne dafa naat mu taw ca taw yu rëy rëy àll boo xam ne taw na ba mu saaña ñu mu dal di taw taw yu rëy soo demee bay ja wëtt pour nga suural day yomb ndax àll bi day naat lool pour nga màndal itam day yomb ndax nàndaleekaay yi dañoo fees dell boo àndeek ibnu naasirin pour nga xam dund ci leeroo xam-xam dafay yombu te itam nit ku barke la ba nga xam ne ànd gi nga ànd ak moom ba leeroo xam-xamam liggéey ci yow day tax barkeem royaat ci yow heure bu nekk rek nga day amee wërsëg foofu foogu toon heure bu nekk nga day amee xewal foofu foogu toon teranga ji moo tolloo ñax mi ndox mi moo tolloo xam-xam bi moo tolloo barke bi. danañ waxaat it daa ngi nelaw. waxa fi te te nga xeejoo bi zuhri ci ndaxañteef an nafiisi buraaji foor al muntaqa bëri bu ñu tànn wara taxta te nga sàmm fi te nga wët fi asari sawari ci jeexiti niir yi da way al jiwadi ya da way nangoo taw waa defta te nga haju bi nekk di ci caq alladi bi nga xam ne lam yan fasim du mu rewenceku fakkaat ak jatag mu ne boo àndeeg ibnu Nasir te yow nga caq boo xam ne du rewente bu sakkaate dagg mooy ibnu Nasir ñu ne taalibam nga sàllaw garaat garaata boppam la waa xatta te nga jàpp bitte wali ci buum almatine guraaji dëgër almuxsali gari buñ xereñee rawam te itam soo àndeeg ibnu Nasir la nga mën a ci buum goo dëhër gi mooy ibnu nasir ku ànd ak moom ci loo wóor rek ngay nekk waaye loo wóorati moom doo ca nekk maa ci sunna rek la lay te sunna dara wóorati daa ne nag ku ànd moom ci loo rek ngay nekk maa ci sunna rek la lay wa awayta te nga tab lil kahfi ci lëm ci weeduwaay almaniyaay bu daa ji terewu këfu mooy bu nit mën a làpp ba mucc cosaanam dañ lay da wu mag day am pax ci biir am soo duggee ci biir day mel ni yow moo nekk ci nit loolu mooy cosaanal këfu su ko defee sooy dox ba yendal jot ah mën nga jaa dugg làpp fa ba yendal li nga war a sooy dox ba fanaanal jot man nga faa dugg làq ba ba guddi jeex loolu mooy cosaanal këfu ñi ko jëfandikoo ci képp ko xam ne rek làq waaye la soo bëggee mucc soo bëggee rawat sa diina man ibnu nasirin ku bëgg a mucc bëgg a rawat diinaam sàlla wéeduwaay bu mag la waa wayta te nga tàpp lil këfu ci këfu mooy lëm wéeduwaay almaniyaay bu daa ji terewu almuttawa bay tàpp waay wasana te te nga yéeg fil jabali ci doj alxasiisil masnadi wuraaji ci ci yéeg mu te boo doyee taalibe ibnu nasirin xamal ne yéeg nga wu jëfee yéeg mooy nekk de taalibe ibnu nasirin martaba bu kawe la bu ne dun ne ku ne tànn nañ ko pour mu àgg ca martaba bu ne dun ne ku ne tànn nañ ko léegi la demee dégg nga waaye ñun nag ci asaabu tijaan yi de dégg nga wa wakalta dégg nga sarhan nafsi gédd bakkan wala gédd ba moom bakkan la min ka ci yow li saa isin ñaal aji sàmm kaafin ku de aji doy isaa in kuraaji doy ba di suro yi ñaal gëddi yi xafanta doy mu ne foo ànd ak sayid ba jaayanteeg moom ni joxe sa bopp ku mën a defar nit mu ngi mel ni yow moo xamul gédd bu xam caawo te sawar ca lool nag soo ko déglu moo des ah déglu ko rek mu sàmm moo des Sayyid ibnu Nasri daf ne la ku jaayanteeg moom nangul ko rek moo des ah pour nga jëriñu nangul ko rek moo des wakkal ta te wakiil sarhan nafsi gédd baabam bakkan la min ka ci yow li say sin ñaaraji wat kaafin kudaaji doy li saa in kudaaji doy li suruhi ñaar xafante din ku daa doy wa sakawta te tawat lil xakkami jëm ci aji xatte alladi aji xatte joo xam ne yuskika dana mën a dindil tawat min imbaate xasmin ci mettital ak aji xuloo yalante din ku daa tat ji xuloo min awaaka laala moom sa batexu bakkan la soo àndeeg ibnu nasir nim lay xaajaleeg hawa dafa mel ni rek yow moo xam ne dafa am ku xulóot mu sonnal la toor te moo la tooñ nga yóbbu ko ci àttekat boo ne boo àttee kenn du ko te peeti mu àtte dal di la xeyal dal di yow na sakkal de dalee ci mbiram kooka ko ànd ak ibnu nasir itam noonu la mbiram de demee caawa noonu mooy lim bëgg a lay firi xakam aji àtte lay firi waaye xakam moo ëpp doole xaakim mën na àtte mu teppeeku waaye xakam bu àtte kenn du ko tepp mu ne nag Sayyid ibnu Nasir xakam la kon bokk na ci nit yàlla nga xam ne seen liggéey dara du ko di yàq seen liggéey dara du ko di yàq ko mën a xëy na loolu mooy lim bëgg a wax waaye nga xam ne man damay jàngale rek waaye duuma nag duuma nag nasir yu tey duuma ko nag wasa kawata te nga tawat lil hakami jëm ci aji àtte alladi aji àtte joo xam ne yuski ka dana mu la dindil tawat min imdaade xasmin ci métital ak aji xuloo yalanta din ku daaji tat ji xuloo min hawa kalaala moom sa banneexu bakkan la rikaabuka daata irqin musxiran فليعلو النعمان الهوى وليرعدي ونزلت في أهل المهلب ساتيا مهلب ساتيا ووردت ورد الجود غير مدود ووردت من ماء الفرات زلاله إذ كان غيرك واردا أجنى المدي وأتيت بيت العلم والعمل الرضا min baabihi mustafidan lil miqlati waafat laka al ayaamu baada mitaaliha bi liqaai misbaaxi zamani l awhadi jàng loolu boo àggee ci barabu ibnu nasirin nim doyee rawukaay ak nim doyee barabu tidanga ak ni mu doxee barabu jëriñoo kaay ci la doon wax ci lay wéy mu ne waxaat ci jéggi rikaabu ka say gawar zaata herqin zaatu herqin musxiran mbir moom mu daaji dugg sahara fali alu na kowe naamanul hawa naaman maa moom bànneexu ba kan la wal yarot wala boog na dënnu te mu dënnu mu ne soo àggee ibnu nasirin soo àggee ci barabu ibnu nasir yow ku rëcc nga dootoo bokk ci ña xawan na fi da yàqalati mukk da nga mel rek na arab bu waxoon waaye la boo xam ne noomaan abu qaboos da tëkku muy daw pour génn ci suufas abu qaboos te suusi mu ngi am ci saa toyer mu dem nag ba yaakaar ne dana dana rëcc ba ko jub saa tamit xin nag wala mu yaakaaree ne dana rëcc nag muy wax isa jaawasat min zaati irqin saniyatun fa qul li abi qabusa ma shita farodi borom bi abu qabus borom bi zaati irqin waxal abu qabus na ko name la naqiin waaye du ko tawee sama kaw de isa jaawasat min zaati irqin saniyatun fa qul li abi qabusa ma shita farodi soo demee ba jàggi saa sa herqin nel abu qaabus ah na dënnu lu ko neex melax lu ko neex xiit moom ñuul a waaye du ko tawee sama kaw de te eh, saa mu fuuralee nu ne ñàngalee nu ne waaye man de dootu jot ci man man oona ko mu ne saa boo xawaate propagande nu ne de saa boobu mu yàqal ñu bëri de saa boobu mu fëkk ñenn ñi de waaye mi dem ba ci barabu ibnu nasirin nga tënk ko ci yaram yow rek ci nga xawaa loolu mooy leen bëgg a wax. waa dat te jéggi rikaabu ka say gawar. saatu herqin saatu herqin romb nga saatu herqin musxiran bi romb daa ci dugg saara. fan yaalu na kowe. naamaanul hawa. naamaan maa moom bànneexu ba kan la. wal yaraat te na dund. wana sol te te nga wàcci. fii alil muhallab bi ci ñooñ muhallab. saatiyan ci jamonoy sitaa. te itam barabu ti daanga la boo fa àggee dangay mel ni ku wàcc ci alul muhallabi ci jamono yu sita jamono yomb na am jamono jafe na am yow ti daanga rek ci ngay dund ndax barke bi ko yàlla defal dafay junjul arab ba waxoon ne nazaltu ala alil muhallabi shatiyan gariban an il awtani fi zamani il mahli tama zala bi ikramuhum wa istiqaduhum wa birruhumu hatta hasibtuhumu ahli mu ne wàcc naa ci alul muhallabi ci jamonoy sita xam ne jamono jafe-jafe la ci laa dem ci alul muhallabi xam ne yu bëri dafa dañ ma nekk ku fa tumaranke du dama fa ami bokk ñu naan jege ñaale ji moo waral nangam muy jamono bu xam ne itam jamono bu tat la dafa jafe lu mbir ye yomb ñu ne dafa la te ak si ci man jamono bu jafe la ku fa tumaranke la ma dem ko sita dañuñ dama teral dama gendeeku dama jekkal ma ma foog ne fa dëkk mu ne barabu ibnu nasirin boo fa àggee nañ lay taxawoo ci sa mbir ak nañ lay teralee man nga mujj fàtte sa dëkk ndax neex neex wa nasarta wàcc nga fi anil muhallab ci ñooñ muhallab sadiyan ci jamonoy sitaa mën naa liggéey benn mën naa defar benn xasida ci tagg yonent mu tuddee woon ko al adwa fi madi xayril ambiya dagoon nimiyatun fadiyatul majra adi xiraat bi maa ngi cay jëriñu ca xasal ba ndax xamu madinatul munawwara ahadul haramayni sharifayni waaye bind dama bindoon qalbi rahinun bi rabain lam yazal harama na oqol mu ngi tëju ci wàccuwaay boo xam ne mosul dañ di hurum rabain yu baahi bi bi orbin xut hubbuhum hutima gis nga bu baax yu baahi bi orbin hubbuhum hutima dëkk la boo xam ne benn boor boo xam ne waaxa bu yaatu moom la moo fa pare waaxa mooy àll bu xam ne bëriwul ay garab ak yi mel noonu àll bu tàlli boobu noonu laa ko gisee woon ci def ci dictionnaire yi noonu laa ko ci gisee woon mu ne xabat bi xabat bi saamixatun sa'nuha ajabun mawsumatun bi masaya tasdarin nujuma سكانها كمصابيح الدجى شرفا تطلو بهم عنها والأوطان والندما دلنغ سكانها كمصابيح الدجى شرفا تطلو بهم عنها والأوطان والندما بلغ سلامي إلى تلك المعاهد إن وافيتها ثم سل عن أهلها الكرما وصرها لهم من شوقي إن نزلت بهم نبئهم أن وجدي ليس منصرما ci na ku baax a baax a jismi saqimun wa ayni ataataha saharun wa damu minni ida kafkaftuhu sajama ci na ku baax a baax a baax waaw noonu la demee rek qasara min nahwiha tayfun fa awdaani ma yajalu saxra law qaasahu munhasima ci na ku baax a baax in taadiloni fa inni lastu asmaukum aw taadirooni fa udri laysa munkatima sirtum ilayha wa qaydu dambi aqadani fa sirtu minhu xali'a lubbi muxtasima fiyal jaraimu la tanfukku ramiyatan bi asumin min rasaya qatbuha faqima dina bu baax a baax fa xaalibi nafsa la tulqi zimama laha fa innaha sarru ma asma wa ma wasama ko baba wasluk sabila al ula radu lubanatahum min al karamati saddu laha siyama hawa wa tanfiran an dawaati summi aftakuha bil mar'i ma sawala shaytaanu idru jima dina ko baax a baax hawa kun abidan aqidan bil hazmi muhtasiban innal muyassara lil xayrati man hasuma dina ko baax a baax noonu la demee rek ah wala tugarra bi'atin qaadahu hawasun ilal maxaasi fa atha daliman galima dina ko baax a baax léegi ma àgg ci taxallul bi ay xis ba mi rakka bil iskari muntasiban ida taqaasa mahrurun bima saama wala su daf diri yow ni teen ay sëriñ su daf diri yow ni teen nga ay sëriñ waaw su daf diri yow ni teen nga ay sëriñ ay qiddami raka bil askari mun bil bil iskari muntasiban ay qiddami raka bil iskari muntasiban yaa bakkal mi nga ñoddee ko ci waat fàttali gi ndey fàttali ida taqaasa mahrurun bima saama dina ko baax a baax ila nahji man laana al fi sayrihi is adama sabra muhtasima is adama sabra muhtasima waaw waaw ji dégg ila alladi ila alladi jallala dunia bi suhbi hatayahul haniyati fasdadat biha tuabi biha tuama ila abil qasim al barri alladi xadaat lahu lmasaya fasad hajaba dina ko baax a baax parce que dëgg neex a neex ilaa abil qasim al barri alladi qataat lahu al masaaya fasaad al arba wal ajama muhammadun rahmatul mawla hujjatu ruhu nubuwati qutubul jillati suama dinañ ko baax waaw waaw waaw muhammadun rahmatul mawla hujjatu ruhu nubuwati qutubul jillati suama daakal musarrafu بالجاه العظيم وبالأسرار والحوض والإسراء والإسراء قد علما. wa bi sabaati yawmal hawlu muktahamun wa billati misluhu qad ajazalhu kama jël ku baax a baax waaw wa bil jaafiri la yusi maasirahu xulwul bayaani ida ma fawaqa alqalama téeméeri bi xamal naa la te wàcce naa mu ngi ci samay kayit maa ngi ko foog maa ngi ko foog daal ne mu ngi ci samay kayit dama ko ci génn rek waaye daal il faut que ma ne daal war na réer te yàgg na de yàgg na de waxuma si waa ji doogut de yàgg na lool yàgg na yàgg na de yàgg na de. ak fa ngeen néew